saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa sunu papa ipongaar yi ma wax ca combat royal ba waroon a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé moom ipongaar yi la sunu làmb dalal mu xëy defab croix ci combat Ama Baldé Modou Lo bile combat la tiit ak ragal moom ipongaar yi ñemee na ko wax wax na ko ca kaw la mu xamle mooy combat bi bu leen sonn combat royal bi mënta nekk le combat ne peut tenir loolu mooy ay kàddoom combat bi mënatu que contexte bi moo ko permettre wut li mooy kenn xamul kañ la lig Nicolas di génn kaso rax ca jàngoro jaa ngi réew mi kenn xamagut kañ lay yéex ba ñu continuer waat di organiser sunuy combat te bu jàngoro ji jeexoon ba génn it faaw ñu am temps ngir mën a kalewaat bile combat te bala moo jàpp date il faut mu décrocher ay sponsor ba noppi loolee bokk na ci li tax ma ne bile combat mënut nekk ren leneen la mu wax mooy coow lay dox diggante arbitre yi ak CNG moom ipongaare la mu xamle mooy diggante CNG ak arbitre yi daal seen problème jàpp ma ne xaalisu ko waral si tóor nuur mii ni mu mel ci xaalis jàpp ma ne xaalis dana ko boole kenn moom lu mu yor rek nit ñee ko bàyyi ci moom ko boole kenn te maag ñoxo baay xam nañ ci dara saa yu dana ma tëgg junni tëgg ñoxo baay junni nit du ko def mu ba pare di bëgg xaalis di ko boole kenn ñoom daal mën naa ne assurance bi moo leen ci gën a soxal di demandé assurance moom jarul ñu ciy raje kenn mel ni ñu nekk armée armée sax duñ ko defee nii décision bi président Alioune Sarr jël ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te moom sax gannaaw waa làmb yépp nee nañ na dem dama bëgg mu dem jaar ci la grande porte liggéey na fi liggéey bu rafet boo xam ne waru koo yàq waru koo tilimal critiqué ténor ya nekkoon ñu ngi ci guddi gu setagul muy Gris Bordeaux di Forza di Lac Rose ci nekk ci ñoom am nga problème bu la day sëkk bu dee Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass moom revanche am ak Balla Gaye 2 moo ko teree nelaw guddeeg bëccëg suba ngoon moom lay xalaat gannaaw ba ko Balla daanee ba léegi amaatagul combat te revanche am la bëgg jëli bu dee Forza mënatul am combat ndax la journal ba xam le mooy ay adversaire amatul kenn critique bi mu nekk li ni mel moo waral sunu làmb ne mennam Gris 2 moo mën a relever le défi bu dee Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass mañ doon wax naan dafa gedd association des sages génn na ca biti bàyyi na booy kayre may porte parole bala mu xam mooy Gris Bordeaux mosula bokk ci association bi bay bàyyi bi association daa organisé ci kaw ba ci suuf am nañu suñuy principe am suñuy objectif Gris Bordeaux kay nañu wax ne quitté na groupe